bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafi alanbiyaai walmursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa saxbihi ajmain allahumma axrijna min zulumaati alwahmi وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين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 di bég lool ci ni ngeen ñuy toppe di leen jaajëfal bu baax baax ci ànd gi ci ñaan yi ci wétli gi ci laaxente biir gi yal nañ ci bokk jariñu yal nañ ci bokk jariñu buñ ci am yal nañ ci am yàlla luñ ci man di ñàkkit yàlla buñ ci ñàkk fayu borom bi subhaanahu wa taala ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen siyaare di leen ñaanal ñi nga xam ne ñooy bàyyi xel jotaay bi te tawat ndax soppee baax yi ñu ci bari ay mag lañ ni ma ko baaxoo waxe te mag ak a di ñoo ànd yal na yàlla saafara leen ñi nga xam ne ñooy xëy fas yéene wuti kuy wuti ku ne am nga bëgg waaye du ñuy xëy di wuti ñëppay am waaye yal na yàlla boole leen ci ñi nga xam ne lañuy xëy di sàkku ji danañ ci jot tam gën ci yéen gën ci seenu njaboot ñoo ngi nuyu bu baax baax jàngkati alquran yi ak jàngalekati alquran yépp di leen siyaare bu baax a baax te di leen ñaanal di nuyu ñi nga xam ne ñi ngi sàmm ndonal mag ñi te di ko sàmme sàmmin wi nga xam ne mooy sàmmin wi tegu ci yoon ndax yu baree bari ci jamono fi mu toll tax na yu baree bari kenn mënatu koo wax waaye bari waa na ku yor yëf wala mu yor ndono te nim koy yoreeg nim koy sàmme day xaw a juunu nga xam ne ñaari xaaj yi jàkkaarloo yëpp léeg-léeg benn boo ci song ba mu yàgg rek da ngay mujj yàgg am lu lay ñëgg-ñëggal ba nga bëgg a taxaw bu fekkee ñiy sàmm ni réew mi di doxee ci wàllu politique ñoom moom seenu woy daa yàqu xam naa tooñ nañ leen ci ay yëf waaye ñoom it tooñ nañ seen bopp ci lu bari ba tax sax léeg-léeg boo ne damaa bëgg politique ñi la bëgg ñëpp dañuy tiit maa ngi koy wax barki démb ci jotaayu sëñ Abdou Mbacke bële mën leen damaa bëgg a dem defi politique waaye <laughs> am naa ci benn xarit boo xam ne maanaam ji xaw naa bënn ay nopp ndax rek penc moomu ak euh, euh, terrain boobu noo xamante ne noonu la bindoo ala kulaalin misaal rek laa ci jublu waaye doy na waar te ci cause yi waroon a gën a euh, noobul la bokk ci taxawaay yi nga xam ne ña koy def ñëpp dañ leen waroon a tàccu ndax mooy ki nga xam ne dafa bas yéenee taxaw bu dee ci dëkk la dëkk nit na leen damay dem bokki ca yëf ya ngir li mënta agsi ci dëkk bi ma fexe ba mu agsi fi bu dee am réew lay laaj mu ne damaa bëgg ngeen jox ma réew mi ndax li ngeen bëgg ku leen ko fi defal ma dimbali leen nose leen ngeen jàppale ma ba ma man koo def waaye mi ngi noonu boo dellusee ci daara ji léeg-léeg nga ne réew mi moom ñi ko yor dañ ko war a jëlee ci seeni loxo jox ko sax lislaam ma ne waaw buñ ko joxee lislaam de moom lislaam lu mat la waaye ndax ñiñ wax ne ñoo téye diine wala ñi nga xam ne ñoom la ñuy woo di woo lislaam buñ leen ko joxee ndax ñooy tane ñii fi nekk loolu ay laaj yu bari la yoo xam ne jar naa laaj ndax bari na ku naan la diw def la diw def daa àggut fa diw àgg waaye bu fa àggee boo moytul moo yées diw mooma ca lam def bari na bari na bari na lool léeg-léeg fi mu ne ci yi yi yi ñu fiy dégg ci ay scandale ci wàllu suuf léeg ko fiy dégg ci ku këpp kees maanaam toog di ko critiquer moo gën a yomb dem ba àgg ca tiim ko bàyyi ko fa yow nag yaay laaj ndax yu ndaw ndawaan yi nga xam ne mi ngi lay romb yaa ngi koy filam déet bu dee yu ndaw ndawaan yi yaa ngi koy fil di ko palamti boo àggee ca yu màggee itam danga koy jéem a def fuuf rek te du sotti moo tax ñu doon jàngaat leader bu mag bi nga xamante ne moom bi mu ñëwee dafa am fu mu jóge am fu mu àgg bàyyi yëf ci ag mat bàyyi ko ci ak dal bàyyi ko ci ak tegu mu yonent bi alayhi salaatu wasalaam xam naa buñ ko mënoon ba jàngat yonent bi ci wàllu politique day doy sëkk boo ko toppee ba ci ab chef de l'état wala taxawaay yi nga xam ne moom la war a am donte ab yonent la baat boobu day day baat bu ciy nekk boo xam ne maanaam defee ko ni mu ko defee ci façon bi mu ko defee ak ki mu àndaloon muy borom bi subhaanahu wa taala ci alwaxyu ak yeni mel day xaw a jafe waaye bu waat yooyu yëpp àndoo it nga gis ne rek moo yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàmbaar jooju nga xam ne kenn du moom waxoon naa la démb bi ma yëkkati jotaay bi ne suñu borom subhanahu wa taala da koo digal ne ko na jottali woote bi na ko jottali gàlloo nag moom borom bi ci ne ko maa lay sàmm maanaam képp koo xam ne danga laxasaayu ne da ngay liggéeyal yàlla te muy dëgg ci yow suñ borom nee na doxal maalay lay sàmm kenn du man ci yow dara mu tàmbulee ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam boroomam bi mu ko wooyee ci aaya ji ma jeexale woon waxtaan wi démb ci ne ko yaa ayuha rasulu ballix maa unzila ilayka min rabbika jottulil li ma wàccee ci yow li ma wàccee ci yow amatut ay bànneex yoo ci xool amatut ay naqar yoo ci xool maanaam man ma yàlla maa ko wàccee ci yow ne la jottuli ko ko rek yàlla nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam yow jot li laa la sant jot lil ma rek te génn ci jot lil ma te génn ci maanaam di waxtaane am mbir àgg fenn jàpp ne su ma ko waxee mu am kum naqari boo àggee ci diw man na maa yàqal dara est-ce que loolu du yeexal sama dox ndax du tax ñu wax ma nangam déedéet yàlla nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolu amul problème yow waxaal rek moo tax bi mu defee li ko yàlla sant lu ne dégg na ko ci bi defee li ko yàlla sant lu ne dégg na ko ci wax nañ ko da dof yonent bi wax mas nañ ko wax da dof de yow mi tegu ci yoon wi di góorgóorlu buñ la waxee da ngaa dof bu mu wax nañ ko ku la gën bi alayhi salaatu salaam wax nañ ko ab woykan nga ab taaxuraankat la di ah mooy oustaz da ngay woy léegi garaawut yonent bi nee nañ ko oustaz yonent yàlla muhammad ab taaxuraankat nga wax nañ ko ne ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam am njabar la am njabar la dafa yor ay ay njabar la yor ay xarxa fuufa waaw ay mbiram natreelut wax nañ ko moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko ab dof nga majnuun danaa ci ñëw ànd loolu yépp ñu ko wax téewut mu téye message bi mu téye jàllaleel ko boroomam ba mu jàll ndax yàlla nee na ko man maa gàlloo dox sa diggante nit ñi ba duñ la lor wallahu yaxsimuka min annaas foofu ma toll dafa am yu ci sama xel di dem léeg-léeg yoo xamante ne danga koy gis ci pénc mi da gis koo xam ne day këpp kees maanaam sàcc li ñëpp bokk baat bi loolu rek la léegi ñu naan këpp kees ak détournement ñu tëj ko ci kaso bi nit seeti ko wala nit di waxtaan ak moom naan ko muñal ndax yonent yàlla yuusufa duggoon na kaso ay ndaw yonent yàlla yuusuf bu muy dugg kaso daa wax boroomam ne ko nekk ci pénc mi di jotee jigéen ju ma dugg kaso ma ko gënal dugg kaso moom ma ko gënal nekk ci pénc mi di def lu yàq société bi di trahir sama askan dugg ci kaso bi moo ma ko gënal yow nga ne ci pénc mi trahir saw askan ci li ñëpp bokk ñu jël la dugal ci kaso bi nit fekk la fa def lam yuusufa ci biir kaso bi ngay xugguleku xam nga ne yuusuf loolu taxu ko woon a dugg ci kaso bi moo tax comparaison yooyu man nay man nay xool léeg-léeg léeg nit nekk ci naka sudut noonu ay ayib yu rëy ba penc mi di ko waxtaane nit ñëw naan ko li lay wax bu la saf ndax wax nañ ko ku a gën waa mais ki la gën moom daa nekkoon ci lu gën kon ña ko doon wax ñoo ñaa sikk yow nag dangaa sikk ay nit di la corriger di wax ci yow kon yow yow mi ñuy wax yow yaa sikk nit ñi lay wax ñoo nekk ci ak njub maanaam léeg-léeg yëfi day day ñëw ñu def ko arme boo xamante ne dañ koy nelawalew nit ak di ko xeexe ay yëf te fekk loolu taxu ko woon a jóg moo tax suñ borom ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam yow jotlil jotlil ba léex na jot kon kii jotli day jot ci yëf yi kii jotli day jot ci yëf yi ba noppi door koo jotli ci ñum jotut yonent bi alayhi salaatu wasalaam nag dafa jot ci yëf mu leer ci moom nañ suñ borom ne ko jottali ko mu jottali ko ba mu jot sëkk bàyyiwu ci dara moo tax keroog bi mission jeexee mu yëkkati loxoom ca xajjatul wida ne leen ndax li ma yàlla yónni woon jot li naa ko ñu ne ko jot li nga lépp mu ne kon yàlla seedeel allahu akbar suñ borom nag ne ko wallahu yaxsimuka min an naas lu tax wallahu yaxsimuka min an naas mooy nit day am lu muy tàmm day am lu muy tàmm am lum miin nit lum miin mu nekk yëfam mu nekk aadaam nekk mbatiitam ki nga xam ne dafa ñëw war ko caa jëlee day metti ci moom am noonu la koy def ndax tàmm tax tàmm ab liir fi mu ne daa jàpp ne weenu ndeyam rek moo di dund muy seex di macc boo koy door a feral day jooy day mer day bañ a lekk day nangam waaye bu demee ci kanam tuuti gis ne ndekete eh, di naan ci fonde bi di naan ci ruy bi di lekk ci nangam ji di lekk ci nangam ji looloo gën ñun ñi ñëpp ku ne xam na ne ku ci delluwaatoon fas yéene yem ci weenu way jur wa képp di ko nàmp ko dunde boo moytu da ngay xiiboon ndax àpp bi nga ko war a bàyyee dafa jot waaye ki koy bàyyiloo da nga koy mere da ngay jooy doomu aadama moo tàmm loolu moo tax woykat ba ne woon bakkan moog ween a yem wala bakkan moog xale yam boo ko firalu du fer day nàmp rek ba ne lëf yaay indi ma nàmp boo ko firalu dana dem ba àgg foofu di ko wax moo tax da ngay feral sa bakkan bi dañ koy jàpp feral ko dafay dafay jot léeg day weesu léeg day weesu sàmm bi xëy yóbbu ak juróom ci àll ba dem sàmmi leen dafa war a teel a ñibbisi ak jur gi bu jant bi jengar bi rek mu jengar mooy teel a jox si teel a jox si bu teelut a ñibbisi lu ne mën naa xew mën naa am yu réer mu war a fay nangam nangam yu baree bari mën naa xew waaye nit itam day teel a ñibbisi mooy tuub wa anibu ila rabbikum waaw kay jof si leen yàlla nee na dellu si leen sori ngeen ma nag sori ngeen ma waaw ba nga juddoo ba léegi yaa ngi fo ba am cinquante ans yàlla ne tee ñibbi si nag te xalaat ne xanaa doo dund cent kon xaaju xarnu nga dund kon ñibbisi leen waaw yonente bi alayhi salaatu wasalaam borom bi ne ko jot li li ma wàccee ci yow waaye nag maay dox sa digganteeg nit ñi ndax faaw ñu dal ci sa kaw faaw ñu jaboliise la faaw ñu ne dafa nañ ma baal faawu ñu ne dafa bëgg waaraate faawu ñu ne xool ko moom ak muuraayam yii faawu ñu ne dégg ko mun a du ma lekk nangam ndax nangam dafa xaraam du ma leb nangam ndax nangam dafa xaraam yooyu yëpp dana ko dégg waaye mu ne ko loolu yëpp bu mu la déranger ndax wallahu yaxsimuka min annaas yàlla ne ko man maay maa lay aar maay dox sa digganteeg nit ñi moo tax léeg-léeg nga gis jël otoom bind ci wallahu yaxsimuka min annaas ba noppi di duble ci liñ continuer bëgg wallahu yaxsimuka min annaas aar ko du ko aar du la aar wallaahu yaxsimuka mina naas loolu lool loolu taxu koo jóg mooy aay yi ngeen gis ñu koy bind ci oto yeeg di ko num tuddati déedéet da ngay ne ci yoonu borom bi subhaanahu wa taala bàyyee ko sa bopp mu aar la am na beneen yaa ayuha ñetti yaa ayuha yu tegaloo am na foofu ñaari ar rasulu la benn bi annabiyu la kii ma indi tey ar rasulu beneen bi borom bi da ku caa wax ne ko la laa yaxzunka allazina yusaaricuuna fi l kufri bum la tiitaloo mukk bum la jaaxaleloo mukk yow yonent bi alayhi salaatu wasalaam ni nit ñi di gaawantoo nit ñi di di dawee jëm ci ak weddi yàlla waaw nga xool gis àdduna bi waaw ñi ci ëpp duñ ay jullit yàlla nee na yonent bi bu la def problème garaawut man yàgg na am minorité allahu nee na ko fu ma laaje tuuti laay am fu ma masa laaje tuuti laay am loolu garaawut beneen bi ci des mu ne ko yaa ayuha nabiyu xasbuka allah na la yàlla doy allahu akbar yàlla nee na yonent bi naa la doy naa la sëkk waaw wéerul ci man mooy bi nga naan xasbunallahu wa nixmal wakil naa la doy sëkk wéerul ci man wéerul ci man bu ma xasee doy ba nga yëg ne man dama laa jàpp ku xeebati bum la saf kula la weddeeti bum la saf ku la waxati naka sudut noonu bum la saf waaye bàyyee ma sa bopp te dem mooy xasbunallahu wa nixmal wakil allahu akbar xasbunallahu wa nixmal wakil wérdu ko baax na waaye gëm ko ak dund ko ci sa kanam borom subhaanahu wa taala dara ëpp ko doole yëmut ci loolu mu ne ko wasbir li xukmi rabbika fa innaka bi ahyunina allahu akbar wasbir li xukmi rabbika fa innaka bi ahyunina yàlla daa mel ne ku naan yonent bi lu ma dogal na la neex waaw lu ma dogal rek nala neex yëf yi nii la ma neexe àdduna mel ni yow defal li ma la sant te génn ci del bëgg del muñ dogali borom bi subhaanahu wa taala atteem ko muñ ak lu metti metti ndax léeg-léeg mu metti metti na jaar naag moom fu mettee metti foo xamante ne loolu yaatu na yonent bi alayhi salaatu wasalaam suñ borom dellu ko wax ne ko fasda bi ma tu'mar warit anil mushrikin inna kafaynaaka al mustahzihin waaw li la digal li ma la digal nekk ci taga woon ginnaaw weddikat yi bokkaalekat yi buñ la tardeel waaw buñ la tardeel ñi nga xam ne nag dañ lay ñaawal ak di la saboote ak di la saboote ñooñu maa la koy maa la koy fegal maay dox sa digganteeg ñoom loolu garawul duñ duñ man dara ci sa mission mission bi day jàll kon maa ngi doon wax digle gi borom bi subhaanahu wa taala digal yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci mu jot woote bi ci mu jot li daawa bi ba mu ci nit ñi looloo ñu ci jotale ma waxoon ne nag démb léeg-léeg yu baree bari am ci yoo xam ne daf lay jaaxal yàlla xam ne xalaatkat bu nekk war na ci xalaat lu baree baree bari di ci wëndeel xelam di ci wëndeel xelam di ko dugal ak génnee di ci xalaat mooy ndax jot nga ci yëf yi waaw yëf yi est-ce que bi nga ci jotee comprendre nga ko xam nga dëgg-dëgg lan mooy diine ji nga jot mooy lan ndax mën naa am dangaa juddu bokk ñu tudde la turu jullit boo muy tuur nga gis ñuy julli ngay julli waaye yëgoo sax fu ñu la jàngale woon julli dangaa jékki-jékki rek man comme ñëpp tisbaar ngay def kaat tàkkusaan noonu timis ngay def trois gue ngay def kaat noonu tàmbali alfaatixa sax laataa ñu la koy jàngale am na baat yoo ci for ndax environnement bi nga doon dunde waaye ndax ubbi nañ sa bopp bi nag ubbi nañ la sa bopp leeralal la li nga jot mooy lan li nga jot mooy lan loolu mooy jot li dëgg-dëgg yi suñu émission yi loolu moo war a nekk njariñam loolu moo war a nekk njariñam euh, li ñuy jàngale ci conférence yi li tax ñuy daje ci xew-xewi diine yi loolu moo war a nekk maanaam njariñam mooy lii ñu jot te yàlla yónni ko yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam muy diine lislaam loolu mooy lan loolu mooy lan loolu ndax dañ koy jàng rek ñu ne ëskay dem wala ndax théorie kese kese la bu àndut ak pratique wala pratique bi daa am fu mu war a tàmbulee am loo xamante ne da koy def ak loo xam ne da koy bàyyi li ñu jot mooy lan gis nga ñi mu àggoon ci ñoom daal léeg-léeg bu ma leen di xalaat te mel na ñoom dañoo xamoon mooy lan ku mas a ñoom naw nga leen ba mujj bàyyi la nga jàppoon ànd ak ñoom jërut woon sax seen coow di ci bari seeni dëkkandoo seeni surga seeni surga te mooy employé yi nga xam ne moo ci aju seen ay kilifa loolu nga xamante ne mooy diine jooju ñu jot nga xamante ne ci comportement maanaam ci melokaan ci melokaan li ma li may faral di junj maanaam tey nit mënoon naa ñëw ci jàkka ji ne damaa bëgg a dugg ci diine ji ñu ne ko ah alhamdulilah eh suñ mbokkum jullit mi allahu akbar allahu akbar ñun ñëpp bëgg ne am nañ gan gu bees ñu ne ko waa bismillah léegi kuy dugg ci diine da ngay wax baat yi mu di koy wax ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah daal di koy wax ya ca war a topp yépp léeg ñu ne ko julli da la yow daal di war tey na am ku la jàngal jàpp nga ñëw bokk ci julli gi daal di julli mu pare ñu daal di koy bàyyi mu dem boo àggoon tey ne damay ubbi sama livre bi ma jànge diine ba mu convaincre ma ma bëkkee bokk muy xool li texte yi di wax di xool ñi ci jàkk ji dugal ko ci diine yi ñiy wuuteeg ñoom li li texte yi wax ci côté yépp ba pare naan ko garaawut lii da nga koy comprendre léeg-léeg duñ am benn explication buñ ko jox waaw moom ndax jot na ci liñ ko doon jot bu yemee ci ñoom dong ndax ndax jot na ci ndax ndax jot na ci ki nga xam ne dafa seetlu loolu ci comportement wu nit ñi te demut xooli la ca texte ya ba jaaree fa bàyyi yëf yi nga bëgg koo àttee ab yéefar àttee ko ku nekkul jullit àttee ko ku baaxut àttee ko ku nangam est-ce que moom jot na ci yëf yi ba mu leer ci boppam mu won ko ginnaaw ba noppi nga door ko àtte moo tax gaaw a yow yaa ngi naan kii ab jullit te yow mi nga xam ne nee nga ab jullit nga yow li nga doon juddu gi nga ci juddu dong moo la ci boole moom la ko ba ca kéefër ga juddu gam ci juddu dong ko ci bàyyi defoo benn effort pour comprendre li ñëw ci yow defoo ci benn effort ngir xam ci dara moom itam defut benn effort ngir génn ci lam nekkoon ngeen yem rek di di ndaataatal nga xam ne yow sa suwaa boolewula ci lii moom suwaawam boolewu ko ca lee moo tax borom laxdari yu doon la wax ne la imaan imaanihi maanaam bi nga demee ba am benn dayo bi nga war a dëgëraatal sa ngëm nga war a dëgëraatal sa ngëm mooy li mu bëgg a wax mooy ndax jutut ndax jutut ñu ñu maanaam ñu wàccaat ci suuf ñu wàccaat ci suuf jël baati seede yi nga xam ne moom laa wax léegi ñu jël ko xool lan lay tekki baati seede yi lan lay tekki ndax dañ koo wax dong rek pare ci wala biñ ko waxee ba noppi gëmin weeg dundin weeg niñ ko war a yëgee jege nañ ko noonu bu boobaa jeexital yi muy def dana gën a bari ci ñun ndax jotut dellu si waat jëlaat julli ci boppam buñ ko jëlee julli ñu xool ma xam ñun dañuy julli wala dañuy dem rek pour euh, maanaam damay dem rek def sama présence léeg-léeg nit di dem ci ab jotaay waaye danaan ah jotaay ba de solo nga xam ne du déglu la ñuy wax yoonam nekku ci waaye acte de présence rek lay def daal di wàññeeku ndax julli gi da nga koy def rek parce que benn mbir la mu nekk saw loos julli naa ba noppi ah, julli gi wàcc na ma mu jeex déedéet wala da nga koy def ndax jeexital yi nga xam ne moom lañ wax ci julli gi nekk ci yow yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba muy jot li mission bi ñi nga xam ne jotaguñ ci woon biñ ci jotee dañoo soppeeku bañ yëg ko dañoo soppeeku bañ yëg ni kii dafa dugg ci diine lislaam moo tax mu soppeeku ci niñ doon jaayee ci niñ doon jënde ci niñ doon solo ci niñ doon waxe ci niñ doon jëfe ci niñ doon liggéeyee ci niñ nekkee woon ak seenu njaboot seen lépp dafa soppeeku waaw l'islam da lay cuub da suub boo ci xasee dugg na ci jël bandi ba dugg ci biir dalaa war a suub ba nga soppeeku doon ab jullit xaqan waaw yow programme bi am ñu la ciy teg jéego par jéego la da ngaa war a dox waaye fa nga war a jóge nag fa nga war a jëm mooy muslim tawaffani muslima la la Yuusuf waxoon te fi mu jaar fépp fu gudd la waaye dana yàlla maa ngi lay ñaan soo may faat nga faat ma fekk ma nekk ab julit fekk ma doon jullit fekk ma bokk ci programme bi nga xamante ne moom nga gërëm wa alhaqni bis saalihin waaw boo may dekkal nag boo may daje ma daje ñi nga xam ne ñoo ci nekkoon ba nga tamponné leen moo tax jot li ko ba mu jot baax na waaye jot ci mbir door koo mën a jot li day tax nga mën koo jot li yaa ayyuha rasulu balligh balligh un maa unzila ilayka min rabbika mbokk yi ñun de jot nañ ci buñ ko buñ buñ ko yëgee mi ngi fi waaye ndax nit ñu ko joxe baax na ay laaj yu baree bari la man nga ne ma waaw kii mën na ne déet kii mën na ne yaa comprendre waaye ay laaj yu bari la biñ ci jotee ba noppi jot ci jotin wu baax ndax ñun niñ koy jëfee noonu la wala déet loolu aussi ay laaj la yu baree bari yoo xamante ne war nañ ko ci am li lislaam jàngale ci liggéey bu buñ ko doon liggéeyee nañ ko war a liggéeyee réew mu ami jullit ëppale ko ci ci maanaam ci àdduna bi wala ëppale ko ci réew mooma comme ni ko Sénégal ëppalee réew mooma jullit yi ñooy nekk au top ci kaw ci lépp lu mu mën di doon ci wàllu faj ma ci wàllu njàng ma ci wàllu atteya ci wàllu lépp waaye diine ji moom ab pàcc ngay jël téye pàcc bi ci des nga dénkaane ko te yëgoon ne lépp yaa moom lépp yaa ko moom foofu si lu baax li lépp ci la nekk waaye boo ci jotul ni nga ci war a jote doo ko comprendre ni nga ko war a comprendre yaa ayyuha rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik loolu la ko borom bi subhaanahu wa taala wax moom nag def na li ko war moom yonente bi alayhi salaatu wasalaam moo tax dammu nañ ci bëñam ngir mu jottali ko damm nañ ci bëñam ngir mu jottali ko sànni nañ ko ay xeer ba deret di naaj ci yaramam ca Taayif ngir mu jottali li ko yàlla yónni woon moom ak ñi mu àndaloon buub nañ seeni bagage ci dëkk bañ gënoon a bëgg dem tuxu dëkk ci beneen dëkk ndax jotali li leen yàlla digle woon ngir ñu jotali ko daal na xëy këram duñ taal ndax jotali li ko yàlla digle woon moo ko waral am na ci ñoo xam ne dañ leen a rey ñii dañoo takk tànk ci gëléem takk tànk ci gëléem dox seenu yaram dagg ca digg ba ndax seen diine moo leen jaraloon loolu kon gàcce ngaalaama yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak asxaabatul kiram ñi mu àndaloon ak ñi ñëw ci seen ginnaaw góor góorgóorlu waaye kuy dund yeyoo goo tagg we ndax dund gu sotteegut olof dane lu ne xaj na ci waaye dellu si jël yëf yi ba gën koo xool nuñ koy gën a comprendre damaa yaakaar ne jaadu na ci jamono ju nekk waaye suñu jamono jii ci la raweeti maa ngi jégalu bu baax baax doomi soxna yi ñuy dégg di jégalu borom xam-xam yi di jégalu mboolem ñi nga xam ne ñooy topp almisbaax suñu yéene mooy mu jub ak amal leen njariñ Euh, lu ci jub baaxu borom bi la jube noonu la ko waxkat yi diine yi di faral di waxee lu ci dëng ci ñun la <laughs> ñoo ngi leen di jéggalu bu baax a baax jaajëfal leen bu baax jaajëfal oustaz Alioune Sall moom la ñu bàyyee barab bi mu ànd ak ñun ci waxtaanu fajar yi ñu ànd ñëpp déglu ko ñaan suñu borom subhaanahu wa taala mu sàmm ko te sàmm ñaan ko mu defal ñu jàmme àdduna ak jàmme alaxira defal ñu suturas àdduna ak suturas alaxira seen mbokk Mbàkke Sylla la ngeen àndaloon ci seen jotaay bii di almisbaax asalaamualeykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatu